asalaamaaleykum chers internautes Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen ñu tàmm duñu suivre suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal te leen di ñaanal kendal ak jàmm ñu jóge ci week-end bi nga xamante ne ñii di suñu mbokku chrétiens yi ñoo ci doon feetu feet boo xamante ne ñu koy woowee Pâques maanaam bu ñu wooree seen ñeen fukki fan ba pare dañuy def li nga xamante ne moom mooy feetu Pâques yi feet Pâques yi nag bokk ci feet yi nga xamante ne moo gën a màgg ci ñoom di feetu lii nga xamante ne moom mooy génn àdduna ak dekki waatu Christa ci noonu lañu soleil di ñëwalee ci veille pascale ba nga xamante ne moo amoon amoon ca cathédrale de Dakar di titrer des prières pour le pays et le président élu di ñu xamal ne ki nga xamante ne moom mooy euh, monseigneur na lii di Sénégal yépp ak ki nga xamante ne moom mooy le nouveau président élu di Bassirou Diomaye Faye nekk le président de tous les Sénégalais chrétiens musulmans joola séeréer njaago pël ñëpp ñëpp mu nekk seen président ñu di ko ñaanal kon nag li ñuy wax rek ba léegi ne Sénégal jàmm rek a fi xaj te ñun ñëpp benn lañ ñu ñëw ci li nga xamante mooy enquête di ñu dikkal ci prestation de serment remaniement du nouveau président Diomaye Top Chrono di ñu xamal ne ci ay waxtu yu néew a néew a néew kii di Diomaye Faye dafa war a dem fee nga xamante ne moom mooy euh, jam ñaajo ca centre Abdou Diouf war faa def li nga ne mooy prestation de serment maanaam waat bi nga xam ne moom la war a waat ca na mu war a téyee réew mi te article 36 ak article 37 nekk ci constitution bi sàkk ko l'info yéen kaay di ñu dikkal ci waat boobu nga xamante moom la président Bassirou Diomaye Faye war a waat tey nees nañ koy defee di titre les contours d'un rituel républicain maanaam képp ko xamante ne far nañ la président lii doo ko wuutu day mel ni jaas da ko koo war a def mu doon loo xam ne obligation la constitu conseil constitutionnel ñoom ñëpp dañuy ñëw taxaw woola nga ñëw waat ci kanamu àdduna bi kanamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy invité yi kanamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa population bi la fal taqal ko li nga xamante ne moom mooy caq bu mag boobu ñuy doon taqal ñi nga xamante ne ñoom la fi wuutu ba pare élevé ko la dignité de grand de l'ordre national du lion maanaam yëkkati ko ba ci kaw ne fi mu toll nii nag nag jeex na wéroo a dem na kenn kii di Bassirou Diomaye Faye Sénégal mënatul am lu ko sut mënatul am lu ko ëpp mënatul am lu ko wuutu Bassirou Diomaye Faye devient le président de tous les Sénégalais loolu yëpp ki nga xamante ne moom mooy chancelier bu mag bi di ko ko defal su jógee foofu nag ca lay demee ca palais di def li nga xamante ne moom mooy passation de pouvoir bi l'observateur di ñu ci dikkalaat mardi de grâce pour Diomaye de la prison au palais un président sur le divan des psychologues maanaam ki nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Faye xamante ne da koy ndax li nga xam ne moom moo am ci diggante fukki fan ak juróom yi ndax mënul indi ay perturbation am ci li nga xamante ne moom lay yore nguur gi lii di koor gi nga umee ko ca prison ba korite mu war laa fekk pale loolu ku mu jaaxal rek dangaa gëmul yàlla te xam ne yàlla mën na lu ne Les ko di ñu ñëwal ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye enfin aux manettes maanaam ki nga xamante ne moom mooy Bassirou fi mu toll ni nag àgg nañ ci cëppaandaw ji tey jii nag la ko Macky Sall fas yéenee jox lenge yi mu doxal maanaam Bassirou fee nga xamante ne moom mooy euh, jam chef d'état benn vice président ak ñaari premier ministre ñoo ngi ko fay xaar les choses sérieuses commencent place à la concrétisation du don de pour la patrie maanaam guré wa dem na ké nga waxe mbag dem na dañ taali lu waaye doon jaay nag tey dina lamb Basiru mi nga xamante ne moo doon wax la patrie rien que la patrie tey nag moom sénégalais yëpp a ngi ubbi seen gët di xaar ñu ñëw ci Sud Quotidien mi ñuy xamal njeextalu nguurug Macky Sall mi nga xam ne faroon nañ ko yaa douze ans ak ki nga xamante ne moom mooy Basiru Jomaay Fay di cinquième président du Sénégal Sénégal war a jël tey nguur gi tey jii le 2 avril 2024 ci mardi bi jomaay en scène maanaam jomaay ca kaw a kaw a kaw di ñu xamal ne bu ñu paree ci waat gi nga xamante ne moom la war a waat ci suba sa fay sa jam ñaajo bu ñu paree ci ngoon gi dañuy dem def li passation de pouvoir ba ca pale ba ci teewaayu délégation officielle de la CEDEAO bi nga xamante ne ñoo ñëwoon di saytu lii di élection yi ci Sénégal kii di Vieux Sané di bind l'anti système face à yu même ñii ma gis daal xam naa ne moom ak ña ñu àndal ragaluñu loolu noonu di ko feelu cette présidentielle a une tournure de référendum loolu mën naa nekk ndax bu yàlla ne waaw léppay changé waaye bu peuple bi ne waaw it léppay changé le témoin yéen kaay dañu dikk devant le peuple souverain moi Bassirou Diomaye Faye je jure ma àggalil ko ko je jure d'avoir reçu des dossiers lourds chauds pénibles et compliqués des mains de Macky Sall et je m'engage sans contrainte à résoudre tous ces dossiers et à apaiser la souffrance des Sénégalais confiance en notre projet et bi nga xamante ne sénégalais moom la ñuy xaar ci yow nga jël ko devant tout le la CEDEAO li ci des yëpp ay trois de suspension la tribune yéen kaay di ñu titreel bon vent Macky bonne chance pour Diomaye Macky Sall ñu ngi lay ñaanal fa ngay foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu bés bi le jour ñëw feelu ko di ñu wax ne Macky il tourne le deux maanaam di dikkaat ci portrait li nga xamante ne moom mooy Macky Sall fi nga xamante foofu mooy jaar jaaram ca fa mu tàmbalee ba fii mu yegsi nii tey jii en tout cas benn tàggatoo neexul te xam naa ne demam bi nga xamante ne moom lay waaj a dem dina am sénégalais yoo xamante ne du leen neex parce que tamit sénégalais saxarul te lu mu gàtt gàtt gàtt jox nañ ko lu tolloog fukki at ak ñaar ci suñu réew mi mu am ay avancement yoo xamante defal nañu ko waaye nag booy dem demal rek sàll ngaari lam tooro te a yàq lépp loo xamante ne defoon nga ko fi yor yor tey diñu ci ñëwal nomination express recrutement maanaam lépp loo xamante ne Macky Sall tey defoon na ko fi mi ngi koy yàq di ko rajaxe di ko tojate ci li nga xamante ne moom mooy recrutement massif yi muy def nomination yi ak augmentation de salaire waaye nag na xam ne moom miy dem bu amee sañ-sañu def ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye fay di toog am na sañ-sañu dindi ci sabotage yooyu ba léegi direct news di ñu ci ñëwal maanaam lii di journaliste yi desuñu les journalistes invité à se débrouiller maanaam ki nga xamante ne moo di Macky Sall tradition bi amoon ak la présidence et les journalistes tradition boobu dañ koo dagg maanaam journaliste yi fépp foo xamante ne tey jii nguur gi dafa doon déplacé wu bu soree dañuy ut bus yàpp ci lii nga xamante ne moom mooy journaliste yi tey nag ñu ne leen yéen ñi nga xamante ne yéen ñee na organe de yi képp ku ci bëgg dem def couverture bi na nga débrouiller mu doon loo xamante ne journaliste yi rafetlu ko mu mel ni tey ji ñu teew fa wala ñu ñàkk faa teew loolu lijjanti ko soxalu leen mu am ñenn ñoo xam ne ñu ngi ciy samp laaj ndax Macky Sall bëggul kapate lii nga xamante ne mooy rendez-vous historique maanaam ndax bëggu koo saboté ndax munoo jël say nawle invité leen ba pare ci li nga xamante ne moom mooy journée historique bi Macky Sall ak Diomaye Faye war a def tey nga ne say journaliste du ñu ñëw nañu débrouillé wu loolu ci sabotage la bokk ak ci yàq ak ci ñàkk worma la dépêche ñëw di ñu titreel bienvenue excellence Diomaye cinq di ko dalal ak jàmm te yéen bi oyof ci kawam ki nga xamante ne moom mooy la révélation ñëw feeli ko di titré la Diomaye day maanaam ku nekk ak sa bés Diomaye tey la deux bi mooy lu bésam ku mës a dégg la doo nag la doo ku ko mës a dégg sa xel dem ci yoropal nangoo nguur gi ci Macky Sall noonu la nangoo double deux bi ci yoro ñu ngi bëgg a gëm ne nag séeréer yi ñoo nekk buuru yi ci noonu la ñu susu aadi dikkalee Macky propose Diomaye dispose maanaam ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall mooy ñaan Diomaye moom mooy dogal ba tey ñu de ci source a mu ñuy dikkal ci les infos maanaam ki nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoo ngi fi mu toll jot leen dafa mel ni parcours du combattant ñoom daal ca benn otel la ñu dem toog fa li nga xamante ne moom mooy entrée bi dugg ak génn ba yépp dañ koy filtrer lii di bip moo koy def ak GIGN ñuy laajte ndax kii di premier ministre bi nag warul jóge fii nga xamante ne moom mooy Casamance kon nag bu ñu dara jaaxal ci bu ñu déggee léegi ci kanam que ne Ousmane Sonko moom la ñu nommé lii di premier ministre du Sénégal bu nekk loo xamante ne bu amee du ñu bett waaye dina neex tamit la plus plupart des Sénégalais li nga xamante ne mooy neexaat encore la plupart des Sénégalais le quotidien di ñu ci dikkal mooy la reprise du bateau Dakar Ziguinchor pendant la Korité ñu ñëw ci libération mu ñuy dëkkalaat ci affaire Seydina Mohamed Diop maanaam problème bi bi nga xamante ne moo amoon ca Pikine ci semaine bee ñu weesu di ñu wax ne enquête bi nga xam ne dig nangu woon na ko ci loxoy police jàpp nañ ci ñii di benn policier nañ leen li nga xamante ne moom mooy garde à vue yooyu nga xamante ne dañoo nekkoon en service fële sa commissariat de Pikine dañ leen di toppee nag li nga xamante ne moom mooy ray li fàttali la ñu defoon mooy yóbbu ki nga xamante ne mooy Seydina Mohamed Diop ak benn xaritam yóbbu leen fële ca àllub technopole ba dóor leen fa ay dóor yu métti ba ki nga xamante ne mooy Seydina Mohamed Diop mujjee cee ñàkk bakkanam ci noonu nag lañ leen tàggoo di leen jaajëfal yéen ñi safoo Senego Média di leen wax ne à la présentation Fambaye Ndiaye Badiane Abdou Khadir Diouf le grand technicien jërëjëf ñu yendoog jaam